ndax li ma tàmm di wax boo ko siqee ak nit ñoo xam ne dañu rafle lu baree bari ci ngëneel waaw des fois nga àbb leen seen jikko yi pour mën a am taxawaay bu dëgër almaktum daana ko wax suñu maam ju baax ci nee na koy jëflanteeg rek àbbal tuuti ci ay jikkoom mu xam ne mën ngaa mel ni mu mel tay dinañ waxtaanee ponk yu bare bare bare bare bare bare ma wax leen timit gars yi fan lañu tollu ak li ñuy fexe fan yëpp yéen a ngi gis ñuy bind rek di chargé ba tey ci mujj xawma ban at laa gëdd gëj jënd journal moo tax tey ma jënd si xawma ban at laa gëj jënd journal may wax dëgg rek te yàlla tax vraiment damay wax rek du ma souffrir ci liir yenn yeeg yenn yi des fois ñuy wax yoo xam ne yaa leen bëgg tey nag bi ne seen seen rebelle ba <laughs> kabeli seen rebelle bi <laughs> hmm, baax na dañ ci dellu si dellu ci lu baree baree baree bari ci ay mbiru yi ñu nar ñoom te fas yéene ko def fës fas yéene ko def te lolu nak mu laaj ku nek jël ay matuwaayam waaye yenn yi rek gis naa seen golo googu Robert Bourgi xaw ce singe là qui a mangé à tous les râteliers pour te dire man damay jékki ba si yàgg ma ne non vraiment ñun am na lu ñu def suñu borom quoi parce que on ne mérite pas ça. un Robert Bourgi

koku mooy ñew taxaw di ñu wax na ooy Macky Sall ni Macky Sall si Macky est excellent pour eux Macky c'est l'homme lige qu'il faut pour ñom pour gérer les intérêts des Français oui Macky est excellent amul lenn lu tubaab di bëgg wala turc wala marocain wala xawma kan ta Macky du ko def mais buñ ne diw baax na mbokk yi ya lañu ñëk laaj wala déet mom mo ñuy wax Et puis, ils n'ont pas le complexe quoi, de me dire un certain Robert Bourgi, de rien du tout. Comme Robert Bourgi, on l'attaque. Euh, oui, mais qui est bon pour eux, pour l'international. Parce que l'union bug qui ken le corps comme de servir cet intérêt, bah, vous dire tac, mon la Il Faut mouragal maquinée. jéggi ci ce vulgaire politicien là Sarkozy xaw ma xam nga yéen dama bëgg Sénégal yi yeewu mooy xoolal ñooñu bu ñuy ragal africain rek jàppal na africain boobu dafa sukk jébbalu ci ñoom wax nañ ko Kagame wax nañ ko Mohamed Six jël leen référence yi ñuy wax ci en Afrique jël leen référence yi en Afrique wax nañ ko le président Ganaye jëlal leen référence yi en Afrique président yi ñuy jël référence en Afrique est-ce que nous tudd nañ leen du leen parce que nous, un intérêt que la que que ça sàmm balaa du dugg ci leneen Sarkozy mu ñëw taxaw Sarkozy dañ ko interdire Afrique on doit interdire Nicolas Sarkozy de mettre les pieds en Afrique. Il a assassiné Kadhafi après avoir bénéficié de son argent pour être élu président.